asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp kenn ku ci nekk di ak santa sant rafet rafetlu aussi nag jotaay bi jotaayu tey bii ndax jotaay bi jotaay bu rafet la liggéey nañ ko liggéey bu rafet ci anam yu rafet ndax parrainage bi ñu demandé woon lu métti woon la lu jafe woon la ci ñun mais nag yàlla ak kàttanam may nañu ba suñ kéemtalaay kàttan lañ laajoon sax romb nañ ko kon kooku sant yàlla la ndax li laajoon Euh, dem nañ tey ba am nañ 41 mille 500 te dépassé nañ li ñu laajoon kon loolu ñu ngi koy sante borom bi bu baax may gërëm nag comme ni ma waxoo rek ci njëlbeen di gërëm suñu honorable suñu doyen Moussa Cissé ndax lépp moom moom mooy moo fi nekk wër pusoom di ñaw ci région bi yëpp bàyyiwul kenn may gërëm sama adjoint Maodo Aliou Diallo ndax liggéey bi aussi lépp bu ma yeboo ne moom moo ko def ndax man maa nga nekk département Koungheul moom moo nekk Kaffrine moom Pa Matar Fall ñoo amee liggéey bi kon liggéey bi liggéey nañ ko ci anam yu nag jigéen ñi li ma waxoon di leen beral gërëm ndax lii ñoo gis tey lu jafe la te parti boo ñëw tey fekk ndaje mi jigéen ñi ëpp ci mu woon la ne kon am nañ ci détermination boo xam ne lu ko we seen yokk la kon ñu ngi leen di jaajëfal di jaajëfal mag ñi di jaajëfal xale yi euh, di ñaan yàlla liggéey bii ñu tàmbali tàmbali ko ci bisimilahi rahmaani rahim yi yàlla nañ koy eggali ci alhamdulilahi rabil alamin di ñaan yàlla suñu candidat bi nga xam ne tey jii ñu ngi koy séntu yàlla indi ci jàmm ba au soir du 24 février ñu leen vive Karim sa Wade ànd ak moom ba pare maaleykum mbokk opposition Kaffrine euh, damay wax alhamdulilah sant yàlla encore une fois day am parti un grand parti muy PDS Abdoulaye Wade liggéey ko ba mu toll fi mu toll nii ñu ci nekk yëpp nañ gëmee woon Abdoulaye Wade ñu gëmee ko Karim Meïssa Wade doom ji tey mu nekk yaakaaru PDS mais Karim Wade dafa romb yaakaaru PDS dafa nekk yaakaaru réew mi Karim ñu nekkul PDS sax tey ñoo gën a yàkkamti mu ñibbisi daan na ma déglu tey man maay wax Karim Meïssa Wade lu mos a jàpp lu mën jàpp ci àdduna ak lu mën a doon nag ak lu mu nekk nekk farata tey Sénégal moo ko soxla parti baayam bi ñoo ko soxla réew mee ko soxla na ñibbisi ci Sénégal ndax yaakaar dafa rëy te tey ñi nekkul PDS sax ñoo gën a yaakaar di koy man man si wàllu ndax mooy candidat bi nga xam ne moo mën a jubale waar sénégalais fa la yaakaar jane moom moo leen mën a dajale waat jubale leen ndax sénégalais yi tasaaroo nañ tiit nañ seen yaakaar dem na ba xale yi dugg ci géej da ca des ñii di dugg avion jomé di tasaaroo pëccëxoo loolu la ñu Macky Sall baxee to ay nag yaakaar ji tey benn candidat rek la benn ka nga mañ sa wax dana bàyyam deferee woon Sénégal lu ko raw woor na ma ni moom la mën a defaree Sénégal sénégalais yu bëree baree bëri mooy seen yaakaar kon nag euh, appel bi may def nii tey en tant que doyen en tant que sénégalais et puis xam capacité am Karim Meïssa Wade dama xam capacité am dama xam-xam-xam ba dama xam bëgg Sénégalam ndax daf ma waxoon ca bu yàgg na ma foog ma def politique ndax de millions de sénégalais yi nga xam ne dañuy yaakaar sama papa foog ma def politique ndax de millions de sénégalais yi nga xam ne dañuy yaakaar PDS kon foog ma def politique man moo ma téye ci politique Karim Wade moo ma téye ci politique tey kon maa ngi wootee mu dikk ci réewoo mi ñu jox ko réew mi Matar gëm naa ne problème bi nit ñi nekk tiit nelawatuñu ndax jaaxle ñëpp tiit kër yi waat mën nañ cee génn loolu nag amul prix euh, boo gisee ma wax man xam naa ne mu ngi ci yoon waaye réew mi ñoo demandé wala département bi wala région bi ñoo demandé que Karim Meïssa Wade dikk am nañ ay tegtal yu wóor ne mu ngi ci waajaay ku xam Abdoulaye Wade xam PDS xam ne mois de décembre la daan ñibbi si président élection présidentielle jege Abdoulaye Wade noonu la daan doxee bu dikkee ñu def congrès loolu la ci la PDS nekk incha allah ñu ngi koy waajal mais quoi que population bi ñoo demandé na dikk moo tax ma def appel bi Karim Wade Sénégal namm nañ la yaakaar nañ la ñëw te incha allah bu ñu ci yoon maa ngi leen di gërëm di leen sant jërëjëf.